ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi te ëllëg sa gaaña ñëw ba agsi ca dëkk ba diggu ba la woon noonu ci waxtu wowu piyeer yéegoon na ca kaw kër ga ngir ñaan fekk mu xiif mu daanu leer ci biir loolu mu gis asamaan si ubbiku lu mel ni am malaan wàcc ci suuf jóge asamaan malaan mi fees ak ay rabu ñeenti tànk ay rab yuy raam ak ay picc te baat ne ko jógal piyeer rey te lekk waaye piyeer tontu ko mukk borom bi ndaxte musuma lekk dara lu daganul mbaa lu araam waaye baat bi wax ak moom ñaareelu yoon ne ko lu yàlla selal bu ko araamal jëf ya saar fukk aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom loolu am ba mu ñett yoon gannaaw loolu malaan ma ne mes Pierre xamul woon li mu gis lan la tekki noonu ñi Korne yónni woon agsi xel mu sell mi wax Pierre ne ñetti nit ñu ngi koy seet mu ne mu ànd ak ñoom yawut yi daawuñu jaxasoo ak ñi dul yawut gaa ñi wax Pierre ne am malaaka moo wax Corneille mu woolu Pierre Pierre dalal leen ñu fanaan këram léegi ma laaj leen ñett lan la yàlla woon Pierre ci biir peeñu mi yàlla jëkk na won Pierre ne amatul rab wu dagan ak wu daganul gannaaw bi yéesu deewee ci bant bi ñaareel bi ñépp ñi gëm ne yéesu mooy seen musalkat yàlla selal na leen ñépp ñi gëm yeesu benn lañu ñooy mbooloom ñi gëm ñetteel bi ñi dul yawut xarafuñu te gëm yéesu sel nañu ci bëti yàlla kon ñi yawut ak yawut ñoo yem ci kanamu yàlla